yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa sadaqa allahu alazim wa ballaga rasuluhu nabiyu almustafa alkarim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa mawlana min alshahidin allahuma arhamna bilquran alkarim wanfana bilayati wa dikri alhakim wajcalhu lana xujjatan yowma addin allahuma anfacna bima sarrafta fihi min alayat wa dakkirna bima darabta fihi min almasulat وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سبيل أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تاويل على خير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو شيخ اللسان أو وقوف بغير وقت aw idgaamin bi xayri mudgam aw ishaarin bi xayri faktubhu minna ala tamaami walkamaali walmuhadabi min kulli alxaan warzuqna fadla man qara'ahu muaddiyan xaqahu maa al aadaai walqalbi wallisaan wa hab lana bihi alxayra wa saadata walbishaarata walamaan wala taxtim lana bilsharri waddalaalati waltugyaan wa nabbihna qabla almanaaya min nawmi alxaflati walkasalaan wa aminna min azabi alqabri wa min suali munkarin wa nakir wa min akli diidaan wa bayid wujuhana yowma albaad wa aatiq riqaabana min anniiraan wa yammin kitaabana wa yassir xisaabana wa saqil miisaanana miisaanana bilxasanaat warsuqna wa sabit aqdaamana ala siraat wa askinna wasatal jinaan warsuqna jiwaara sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam wa akrimna bi liqaa'ika ya dayyaan allahuma jalil qur'aan alazima rabiha qulubina wa jalaa ahzanina wa dhahaba ghumumina wa qaa'idina wa saa'iqana ila jannati naim allahuma ij'alhu anisana fi lwihsha wa musaaxibana fi lwihda wa musbaaxana fi zulma wa dalilana fi lxayra wa munqidana fi lfitna wa asimna bihi min alzeyqi wal ahwaai wa kaydi al a'daa ya rahmaanu ya rahim اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك سادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين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 bismillaahi rahmaani rahiim alif laam miim zaalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin alladhiina yu'minuuna bil ghaybi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أكبر الله bokki jullit yi fi teew yëpp bokki taalibe yi gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant borom Tuubaa di gën a di gën a yeesal sunu taalibe ci moom di ko yeesal di koy di ko seeral ki ko fi nekkal mu seex Ahmadul Muntaqa Cheikh Ahmadul Muntaqa ñoo ngi lay nuyu di la li nuyu bokk yu baax yi nga xam ne ñoom nga boole loon ñu seq liggéey bi te ñoom ñëpp kenn ku nekk def ci la war da ko tàmbalee ci ñi ma àndal liggéey bu alxuraan ji muy sañ Basiiru Mbàkke bu Cheikh Ahmadou Fadal ak sëñ Basiiru sëñ Abibu ak sëñ Xaadi Jaxate ñi ñu àndal ñëpp ak waa Muqaddamatul Xidma ak mboolem di aji ci jumaa ji mboolem ñu ko daan limee ak sëriñ Xamsatu Mbàkke bi nga xam ni moo jiite woon njàngum xasaayit moom sëñ Sohaybu noo ngi nuyu yow sëriñ bu tedd bi dina xamal ni na ko diglee woon bëggee woon ko ni bu ci suñ kàttan at àggul itam def nañ ci suñ kem kàttan ba jàpp nañ ni la nga digaloon def nañ ci luñ man bu dee wàllu alxuraan ji jumaa ji li fi teew bari na lool waaye mboolem jumaa yi ci dëkk bi ak daara yi ñu ci baree baree bari nii dëkk bi bindoo àdduna si bindoo ni moo tax ñu baree bari ña nga yem yem fa seen daara ak seen i jumaa waaye ñu ci bare bari jokkoon nañu jokkoon nañu ñu yor liggéey bi xamul leen ni na ko diglee ñoo ngi koy defee foofu ci biir dëkk bi ak ak biti dëkk bi lépp teewul nag fii li fi war a teew lépp teew na bu dee wàllu xosaayit yi itam sëriñ xam defee na ko na ko digle woon mboolem kuréel xasaayit yi diggal leen kenn ku nekk fa nga nekk nga toog fa jàng fa lim yu baree baree bari def def ko ci ndigalu sëriñ bi kon sëriñ bi jàpp nañu def nañ ko ni ngi la ko digale woon noo ngi ñaan ci barke borom Touba mu ñu nekk fi wetam la la ci taalibe bi yëpp fasal njabootu sëñ Touba bi fasal la ko ci bokk jullit yi fasal la ko ci yal na la ko yàlla defal nu fekke ñun ñëpp waaye nu nu itam muy bokki taalibe yi muy njabootu sëriñ tubaa gépp muy bokki jullit yëpp la nga ci fasal ci sa xol te ñëpp ñu xam ko yal na la yal yal na ko yàlla defal ba ba mu kawee sa njort loolu dong lañ ñëwoon nañ ko ci nañ ko ci mottali di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nga ñàgg ñoo diggal ñu yàgg jëfe seen diggal tiir bu yàgg yàgg ci barkab sëriñ Tuubaa noo ngi di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa kon sëriñ bi mu ne ñu bàyyi xel ci bu ñuy génn ci génn bi nañ ko waxe woon te buñ génnee ci bitti yokk yi ñu ne xewal xéewal yi ñëw na xew lu door a dem kon ñëpp mën nañoo neggandiku ba xewlu door a dem bismillah الهادي الوفي ولتدخل المسلم يا مالك الملك يا من جاء يا مالك الملك يا من جل عن خاد ارحم جميع الورى